ñu def ci suñu doole suñu doole mooy tey président indi na ceeb tey président dina indi diw ak suukar lu mu àndal waaye ceeb bi amaan na dafa am benn cible boo xam ne moom lañ tànn waaye boo ñëwee ci communes yi nga xam ne dañoo nekk ci frontière bi nekk ci àll bi bu nekk kaa impacté ci wàll gi ñuy wax kenn ku nekk kaa impacté la parce que kenn ku ci nekk sa doom moo nekkoon ci taaxi di ambulant di jëndal ceeb ngay lekk wu ilaa ñii ay maçon lañ

tey moom lañ jël ngir jàppale ko sunu askan mais également ñëw fekk ci président ci li nga xam ne da koy def ngir dimbale nit ñi ba jàngoro ji mën ko xeex ak jàmm. cible bi population commune Ngayeen ñëpp la ah et là aussi may occasion di préciser que ne euh, cible bi lii tax mu gën a gën a mën a feeñ mooy ci wàllu liggéey bi ñu fexe ba mu am transparence bu baax ba képp koo xam ne su bokk nga suñu cible bi nga mën ci jot loolu nag. dama ciy ñëwaat rek di ci gën a ñaaxaat ñi nga xam ne ñoo jàppale ci wàllu liggéey bi maanaam comité bi nga xam ne te ñoo ñu jàppale ci wàllu tànn ñu taxaw a taxawaay boo xam ne duñ ci seet kii fi la bokk duñ ci seet kii bokkul fii duñ seet kii fi la dëkk duñ seet kii dëkkul fii waaye nañ def pexe moo xam ne bu buñ ko defee ñépp danañ am su ñépp mëntu am it nañ seet ñi nga xam ne ñoo ko gën a yelloo ñu man ko am ñi ko gën a yelloo mooy ñu néew doole ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw mais mooy li ma la wax léegi rek boo demee tey ci commune bi ñu ci bari liñ daan dundee ci weer wi seeni doom ñoo ko doon liggéey di ko indi leen ko jox ñooñu tey seen doom buñ toogee ci kër gi xëy jàkkarloo ak ñoom gont jàkkarloo ak ñoom gisatuñ ku leen jox te buñ la waxee dëgg rek mooy am na ñoo xam ne jamono yi sonn nañ ndax ñun ñoo nekk ci base bi ak nit ñi waaye nit dañ xëy wax la loo xam ne yow en tant que responsable sa yaram day daw ndax nit bu amee doomam tey mu feebar ragal na jàngoro ji tax na mënu ko yóbbu hôpital nit am doomam ci këram xëy bëgg a togg añ mënut a togg añ ndax fa mu ko daan jëlee mënut ko fay def kooku mu ngi dund loo xam ne ci këram bu la fa boo ko fa fekkut wala moom mu fekk la fa yow doo ko xam fekk na kooku moom ngi moom ngi dundee coono bu rëy kon donc population bi ñëpp cible lañ population bi ñëpp bëgg nañu am incha allah waaye la ci jàppale ci lañ mën a joxee ba ñëpp mën ci am voilà loolu moo tax sax ñiñ àndal nii ñu ànd ak ñoom parce que kii sama loxo ndeyjoor moo nekk ICP bi tey am nañ comité communal boo xam ne trésorier bi mu ngi nii sama ginnaaw ñu Babou Diouf membre yaa ngi nii lépp loo xam ne couche sociale la bu nekk fii jël nañ ko ñu bool leen ci sans ñu xool coloration politique ñooñu comité boobu tey dajale na fexe na ba jënd na poste bu nekk jëlal nañ la thermoflash poste bu nekk am na ay gants am nañ ay masques am nañ ay gel alcoolisé bépp foo xam ne ci dëkk bi mun nañ jàpp ne nit mën na fa jaar toog def nañ fa benn dispositif boo xam ne lave-mains boo xam ne saabu mataar eau de javel ba ci biir kër yi ba ci sax màngaan yi nekk ci àll bi seen xar ci àll bi sax jël nañ dispositif pour mettre ko foofu noonu loolu démb rek gis naa ñoo xam ne jot nañ seen seen donc comité communal bii ma àndal mu nekk sama ginnaaw nii ñoo taxaw taxawaay boobu jàppale ma xaaruñ ci dara ba loolu tey hôpital bi ICP ba baa ngi maanaam mun na ko seede foo dem tey di nga fekk euh, euh, di di nga fekk euh, sa thermoflash di nga fekk lépp loo xam ne dañ ko war a jëfandikoo ngir aar maintenant aar bi li muy baax baax ñu dimbale suñ bopp gannaaw yàlla defe naa moo ci ëpp solo

ak fan la jógee ak fan lay teer loolu nag dama ci ñaan ci lancer un appel képp koo xam ne daal bokk nga ci commune Ngayeen ak li ko wër gan ngoo gis te xamoo fu mu jógee xamoo lam indiwaale fexeel ba nga signaale ko ñu ko waree ñu yëg ko jël. waaw temps yee si ginnaaw euh, gouverneur région administration yebaloon nañ fi euh, waa armée indi nañ fi contingent bu benn saf bu am doole ñu topp nañ frontière bi yëpp ba côté Nganda boobu ne nañ ma benn Jakarta lañ interpellé. guddi gi yëpp topp nañ ko mais nee nañ benn jakarta lañ sonn gis ñoo xam ne bu ñu ko toppee di daw ak moom peut-être mën na gaañ boppam ñu jàpp ne xale yi nekk ci frontière bi la mais gisuñ fi daal loo xam ne ragal nañ ko waaye may seedeel ne ba tey nag yoolu yàggul yàggul mais temps yii am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ñuy signalé ne jakarta la ñuy war jóge ko Touba di jaar ci côté bii dugg ba démb démb rek ñu ñuy signalé am na kuñ kuñ ma signalé koo xam ne ñu ngi ko topp ba ragal naa ne tey sax dañ ci am information bu leer ñoo xam ne dañ fa nekkoon di jaay ay dàll di wa gàddu jaay di wër joo dëkk Touba di jël ay vélo Jakarta ñu dugg ci frontière bi dugg fii ñooñu ñu ngi leen topp te incha allah du yàgg dara dañ ci am information yu leer ñu nag waa BMS ak ñi nga xam ne ñooy ICP yi nag